moy non bu euh, soppe bu bon sadiqu su yalla ñu yalla musal ci xarit bu bon alhamdulillahi ahad man bi jalalatihi farat wa bil ajri wa'ad li aamilin man jadda wajat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 وما لا يكون أن لو يكون كيف يكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ذي القلب الرحيم والفضل العميم والعقل الرجيح والجسم الصبيح والوجه الوضيح والكلام الفصيح والشرع الصحيح والخضر النبيه والعرض النزيه سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي جعلت رأسه من الهدى وسمعه من الطاعة وحواجبه من التفكر وعيناه من النور وأنفه من الزهد وفمه من الحكمة وأسنانه من اللؤلؤ ولسانه من الصدق وريقه من العسل ووجهه من البهاء ولحيته من التواضع ولحيته من التواضع وعنقه من التواضع ولحيته من العظمة وفقزيه من الورع وساقيه من الاستواء وخدميه من الاستقامة وشعره من البهجة الحسنى وشعر شيبته من النور بحر الكمال والجلال وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه ورضي الله تعالى عن الشيخ الأكبر شيخ الشيوخ قطب الأولياء شمس الضحى بدر بلا غمام شيخ الشيوخ مولانا أبي العباس أحمد التجاني سخان الله من بحر فيضه بأعظم الأواني أيها الحضور الكرام نلقي إليكم تحية تنم تنم إلى شخصياتكم السميمة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما نيو انفيتي دونر ak invité simple yi ak ku ñëw te kenn invité wu la te ñooñu ñëpp nag xam nga ki ci ëpp tiyaabo mooy ki ñëw te kenn invité wu ko waaw tante bi ki ñëw te kenn yëgalu ko mu solu ba jekk rawatina paas ñëw ne dong ndongaaral toog kooku fi ëpp la tiyaabo moo tax man nuyu invité d'honneur yi ak invité simple yi ak ku fi ñëw ta kenn invité wu la di ñaan sunu borom tabaraka wa taala yal na yàlla xar xol yi def ci bëgg sayyiduna muhammad ndax texe àdduna ak texe alaxira mucc àdduna ak mucc alaxira dara mayiwu ko loolu boo yàlla koy xool ci xol boo xam ne boroom ma ngi ca ëmb bëgg sayyiduna muhammad yàlla ñu ko yàlla defal ñu ngi musulu ci seytaane ak bakkan ak bànneex wala tuti minhuma xasman wala xakaman fa anta taarifu kaydal xasmi wal xakami képp ku départ dem ci yàlla te yeggoo ñett tax yeggoo mooy bakkan ak bànneex ak seytaane moo tax waxkat bi ne moytul ñeent sëñ saaliw moytul bakkan moytul bànneex moytul seytaane waaye moytul xarit bu bon li bakkan li seytaane garaaw garaaw garaaw bakkane ko gën a garaaw sayyiduna muhammad nee na ahda aduwika adna man wasiqta bi noon piir mooy bakkan du seytaane léeg-léeg nit dara jiñ ko seytaane naan auzu billahi mina seytaane rajim fekk ne moom bakkanam la mais du seytaane yoonu seytaane nekku ci seytaane dafa wax rasulillahi ne sa gaa yi foo toll naan yàlla musal ñu ci seytaane musal ñu te ñoom duñ bàyyi samay mbir boo bëggee seytaane bàyyi la da ngay bàyyi bagage yi seytaane waaye foo toll yor bagage yi seytaane ba pare ne na la seytaane bàyyi mënu la nekk mu ne seytaane li muy garaaw garaaw bakkane ko gën a garaaw bakkan li muy garaaw garaaw garaaw bànneexoo ko gën a garaaw yàlla nee na am na ñoo xam ne seen yàlla xam nga lan la mooy seen bànneexu bakkan afarayto hawaahu am na ñoo xam ne seen bànneexu bakkan dégg nga de mooy seen yàlla bànneexu ñaari minute ak gàcce giiru dund nag as gor da koy moytu am na ñoo xam ne tey ku leen delloo woon a ndaw am na loo xam ne duñ ci jaar mukk te lañ jaaroon du fay ba mukk te lañ ca doon yëg passé nañ ko bu yàgg moo tax olof ne bànneexu ñaari minit gàccee giiru dund gor su ne da koy moytu waaw bànneexu ñaari minute gàcce giiru dund as gor koy moytu moytul seytaane li seytaane di garaaw garaaw bakkane ko gën a garaaw li bakkan di garaaw garaaw bànneexoo ko gën a garaaw bànneex xanaa xamoo bànneex a tax koor wàcc yàlla daa bind xel bakkan a tax ak bànneex bind xel ne ko xel kaay mu ñëw mu ne ko demal mu dem yàlla ne ko toogal mu toog mu ne ko taxawal mu taxaw yàlla ne ko yow xam nga li tax ma bind la yàlla bind bakkan ak ne ko bakkan bakkan lànk yàlla ne ko toogal mu taxaw yàlla ne ko taxawal mu toog yàlla dugal ko géeju safara mbugal ko junni at génne ko ne ko bakkan kaay mu lank toogal mu bañ demal mu lànk yàlla dugal ko géeju xiif un mois génne ko ne ko bakkankaay mu daw ñëw yàlla ne ko toogal mu toog yàlla ne ko jógal mu jóg yàlla ne ko may kan mu ne ko yow la buur boo xam ne doo lekk doo naan doo gëmmint doo nelaw doo feebar doo tuxu doo absenté yàlla ne ko yow la kan mu ne ko man la sa jàmm bu doyee di di xiif di mar di xoolal coow li muy bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri xiif a ja bokk rek nga am bu xiif amee coow du bëri élection daal nañ koy jàpp koor ren koor gi dégguloo xuloo dégguloo xeex déggoo sànni xeer déggoo taal déggoo daara suba teel gaa yi wate ji kenn ko den sàggu ci taal sa ventilo koor a tax kenn kaasut résultat génn kenn contesté wu koora koora fa jaar koora moo tax ma ne leen élection yi de leen ko jàpp koor gi ndax koor baax na koor kenn ci tër gi doo gis ku ci xeex loo mën a atte atte xeex doo atte xeexu koor loo mën gis kuy xuloo xuloo doo atte xuloo koor ku la fi wane la kaay jubale ñaar ñi coow du dégg dara xiifa tax xiif xiifa fa jaar <laughs> xiifa fa jaar moo tax yàlla bi bakkan ak reewandeem ak xamadeem ak yaradi koom ak ñàkk tegginam yàlla roof ko xiif loo tax yàlla ba muy yar waa Makka juróom-ñaari at yàlla xiifal leen ba ñu saalit ñëw ci sayyiduna Muhammad rasulillahi ñaan bekkoor ba dem yàlla wàcce teraanga yàlla ne eh, léegi nag fal yaabudu rabba haazal bayt allazi allazi jigéen ñi xamuleen li ci topp allazi ataamahum min juuin ba ngeen xiifee bay bëgg a seen bët yi xonq di ngeen di dëreeku kenn rek ngeen woo te moo leen xettali mooy yàlla ataamahum min juuin wa amanahum min xawf moo tax yàlla wàcce koor pour yar bakkan kon moytul seytaane moytul bakkan moytul bànneex waaye li ñuy garaaw garaaw ñoom ñett ñëpp bi leen gën a garaaw mooy noon bu bo euh, soppe bu bon sadiqu suu yàlla ñu yàlla musal ci xarit bu bon seytaane li garaaw garaaw bakkan garaaw ko bànneex garaaw ko xaaji Babacar Sow xarit bu bon moo ko gën a garaaw bëri na ko am gàcce tey weeru xarit bu bon la weer internet bi loo fi seen te mu ñaaw xarit bu bon la waaja xaritoog te xamu ko mu wax ko ay secret jox ko ko mu siiwal ko waaye say noon sa noon du am sa secret am de sa noon dana am sa secret doo ko ko wax doo ko ko jox bu ca jotee rek xarita ko ko jox moo tax waxkat bi ne moytul xarit bu bon départ jëm ci yàlla te yeggoo ñeent yi la tere yegg bànneex bakkan seytaane xarit bu woon yàlla ñu ci yàlla musal ku bëgg a dem kër yàlla il faut nga moytu ñeent yi banka sa baraam nelaw yu bari lekk gu bari wax ju bari tayal foo fekk ku bari wax mën a lekk bari ciow tayal mana nelaw du yegg ci yalla mukk mané fo fekk ku mana nelaw bari wax ba melni seku waj waj waj waj waj waj ne segal segal xam nga segal yooyu ñu mën ciow bari wax tayal mana a lek rek koku du yegg ci yalla نح دواء قلبك قمص عند قسوته فدم عليها تفز بالخير والظفر خلاء بطن وقرآن تدبره كذا تدرع بالك ساحة سعر كذا خيامك جنح الليل أوسطه وأنت جالس أهل الخير والقبر قلب فيبر نيت رك كوي جروم رك كوي سافر موي خيف نيوي نلاو جانغ القرآن بري لوينا في لدي فركانت بروم خم خمي waaye foo fekk ku mën a nelaw Seydi El Hadji Malick nee na foo waaje ah, ah, ah, El Hadji Malick nee na yéem na ma liman yahraba waaw sajër xulub yéem na ma man Seydi El Hadji Malick kii daw safara te foo ko fekk mu ngi nelaw rek wa man yatlubul jannaati wa huwa laayibu ak koo xam ne foo toog mu ngi naan aljana aljana topp mu organiser mu fekk mu walli léegoo léeg ñuy fees ñuy fees tante yi léegoo léeg ñooy fees sabar yi ñooy fees làmb yi waaw <laughs> bëri na conférence yoo xam ne fecckat yi ñoo koy organiser ak waykat yi kon yéem na ma man Seydil Hadji Malick ki bëgg a mucc ci safara te foo ko laajtee ñu ne mi ngi nelaw yéem na ma ki bëgg a dem aljana te po mu organiser bu yàlla séentoo séen ko ca yàlla ñu ci yàlla musal kon moytul nelaw yu bari waaye li muy bari bari lekk gu baree ko gën a danger nag am na ñoo xam ne wan na rek lañ mën ah ñoo mën a dégager benn waaye def ne moom man dama ko gis mu bëgg baayam lool ma ne ko yow sa baay lu tax nga bëgg ko mu ne ba may ndaw damaa foogul woon ne ceeb day jaay mu ne musul xam ne ceeb day jaay moom baayam dana indi ceeb bi rek muy dégager nee na ba mu màgg am jabar ami doom ci la xam ne ceeb day jaay <laughs> mu ne moo tax bi awuma payam dal amna boy yo xamne xam ay li way sen liñ li sen baye ak sen yayi lek gu bari xam nga reg moy rag koo gis febar yàpp ko rek rek a tax sayyiduna muhammad neena man febar yabuma ñu ne ko lu tax mu ne ndax duma bari lu may reg duma lek te xifuma te buma xife bu may lek duma lek ba reg léeg nga ne diw lekkal mu ne regg naa suur naa këll gor du suur ba këll këll moom këlañu rek waaw benn waaye daa ñëw ci maam borom Touba ko man daal mënumaa fexe ba wér damay feebar lu bari rek maam borom Touba ne ko bindal regg mu bind regg mu ne ko bindal ragg mu soppi masque ga <laughs> bindaatu dafa soppi masque yi rek sëñ Touba ko gis nga boo moytuwul kii boo teqaliwu koo kii doo teqali koo kii fee teqali koo regg mënoo teqali koo ragg feebar regg-ragg rek sayyiduna muhammad inna taa may ni may ni laa wax maa fi batni tamaa walam yaku xattu shabanan min atoobi kenn du sayyiduna muhammad inna taa may ni lekk ceeb lekk mbaxal gu tooy da ngay dem dëj gars yi di lambu ñu naan mbaxal mu tooy ak dëj yi dëj yi léegi mbaxal yu tooy yi gars yi fa lañ koy dàkk ndax dëj yëpp mbaxal yi day tooy sëñ Saliou dem nañ fi benn dëj boo xam ne borom dëj ba daa jóg saaga ndey saaga ndey ci biir dëj bi wallahi wal quraan al maire yi naan ñun mbaxal gu tooy gi coow lu ko gën a bari waa ji jóg <laughs> borom dëj ba mer saaga leen ne ni yéen a ngi mel ni sama bàyyi deewut ngeen ne xëccoo xëccoo mbaxal gu tooy ak mbaxal gu dëgër mu ne ko yéen a ko def yéen a puj paj mu leen a togg benn benn plat rek ku fi fekk ceeb bu bi dank ca da dem ku ko mënul nga ñibbi waaye ngeen togg yi togg bu puj paj togg bu paccax paccax mu ne koy def gaa yi laaj ko waaw ah, yéen a ko togg bu ngeen ko toggutoon duñ ko laaj ah sayyiduna Muhammad